salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf euh, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane yi mu ne ñaata soxna la lislaam may jullit bi waaw lii de bokk na ci darsi yi doon jàll ca bii na ba mooy ñeenti soxna la lislaam may jullit bi ñeent képp ku weesu ñeent bëtt nga lislaam di wéy topp sa bakkan masna wa thulaatha wa rubaa sunu borom moo ne fankixu takk leen ma taaba lakum min nisa jigen ñi tey ci yeen manam ñi ngeen bëgg bu la kenn forcé ko bëggul takal ñi ngeen bëgg ci jigen ñi masna wa thalatha wa ruba ñaar ba ñett ba ñent kon fofu la yam lo ñep abdullah ibn abbas neena na yonent mo len wax sallallahu alayhi wasallam ne lip lepp lu upp ñenti soxna haramna, na ni mu harame, nit tak way juróom wu jigen ni mu harame, mu tak domum bu jigen ni mu harame, mu tak ab jigenam boo xam ne nii dañoo bokk ndey mbaanu bokk baay mbaanu bokk nàmp salaamaaleykum wa rahmatullah